jërë ngeen jëf mbokk yi bàyyi xel fi leen Dakar baax a baax di leen siyaar di am mbégte ci ànd bi ngeen ànd ak saa su ne suñu ay euh, yi euh, nga xamante ne dañu dem di fekki ñi nga xamante moom mooy euh, les hommes qui font l'actualité tey ñu ñëwaat fii nga xamante moom mooy suñu kër muy hôpital Souma assistance bi nga xamante ni docteur Babacar Niang moom moo ko jiitee saa su ne waxtaate bi tel fin ñëw ci moom waxtaan ak moom xalaatam ak xam-xamam ci li nga xamante ni moom moo gën a ca màcc ci réew mi donc ci actualité politique euh, docteur. Euh, maa leen nuyu bu baax a baax di kontaan. saa su ne Waly Waly wala Daouda. Euh, su ma la soxlaa ñu jàkkaarloo waxtaan ci réew mi. salaamaaleykum Daouda Waly. waaw maa ngi nii. <laughs> Daouda Waly from Feeling Dakar. waaw ah, Feeling Dakar waaw. voilà boobu de moom neex na. ndeysaan. Ah, Dakar bi mu ngi mu ngi génne yu bari yoo xam ne. Ah, day def lu baax ci nit. dëgg la dëgg la moo tax it seen turu Feeling bi. waaw vraiment. ça ça ça vous ça vous inspire am na lu mu jël ah fii mooy li ngay sentir sa yaram. bien sûr anglais mooy to feel. I feel you feel. exactly feeling Dakar di sentir Dakar. yeah kooku. Eh. Eh. feeling Dakar ça parle Dakar alhamdulilah maa ngi nuyu say auditeurs yëpp. ak say télé. say sa direction ak ah, eh, sa technicien bi aussi. mu tudd Daouda Papa Papa ok maa ngi nuyu baax donc na waxtaan bi yàlla dimbali Uh-huh. ba mu am solo te mën a am ci askan bi c'est important en tout cas ñu ngi lay gërëm baax a baax ah, saa su ne euh, buñ la soxla rek nga bàyyi lépp mayuñ sa temps bien vrai que sax sa temps yombul mais euh, cër bi nga jox fii Dakar TV wax dëgg yàlla bëgg naa ci remercier bu baax a baax a baax waaye doyen actuellement nag actualité bi je crois que euh, bëri na ku nga xam ñu jëm ci ay ay joutes ay législatives yi nga xamante ni c'est bientôt Euh, waaye euh, ñu gis nag loo xamante ni euh, xaw na jaaxal ñu bëri mooy ki nga xamante ni moom mooy Déthié Fall bokkoon ci coalition Sàmm sa Kàddu la grande coalition Sàmm sa Kàddu ñu gis ko ba bëgg démb mu def benn sorte seeti le premier ministre Ousmane mu jox ñu la presse benn information boo xamante ni ñu bëri ñu ngi xaar moom Déthié Fall daal di bàyyi la coalition ñëw soutenir ki nga xamante ni moom mooy Pastef ak le premier ministre Sonko loolu noo koy noo koy jàngate nooy ree rek que moom rek la. ah ah. fu mu nekk léegi. Mame Boye waaw. waaw mais Mame Boye Diao. Mame xam na ni. daanaka xaritu Macky. nekkoon ci conseiller présidence à la présidence de Macky. oui waaw. nekkoon candidat ci élection yi. waaw. am ñaata. parce que zéro virgule zéro virgule pour cent et quelque. ñun ñu am ñaata. cinquante quatre vingt huit pour cent. donc kooku mooy logique bi da ngay am logique da xool dëkk bi lu ci yel nga am nattukaay. waaw ñu ne la fii cinquante kilos la fii deux kilos la. oui. moo ci gën. cinquante kilos. Ah. Mhm. kooku mooy am logique. Mhm. logique il faut nga am logique. Mhm. boo demee ba dëkk ñu ne ñii ñii lañu ñu teral ñii la population bëgg. te yow nga ne population moo la fi teg. ah ci un homme du Ah, man nga xalaat lu baax ci public bi mhm. ah nekk conseiller présidence am ay euh, kii expérience te defe naa Diomaye ak euh, Sonko defe naa baaru ñu kenn képp bu ah. bëgg a jóg jàppale Sénégal je crois que tu es bienvenu mais Déthié Fall bokkoon demoon ba bokk ci ay oh, liste yow pareeguñu yow ah. avant avant le 17 di nga gis lu gën a lu gën a yéeme loolu lu gën a sax du wax si yéeme parce que loolu mooy logique ah boo demee tey dégg PDS ànd naa APR nga defee loolu. loolu du contre nature. contre nature. Mm-hmm. Karim mën na taxaw wax mag kii ñuy waxtaan. ak li xew yëpp ak li ko mag. sax ñoom ñaar mën nañu taxaw di waxtaan. ku la jël tëj la prison exilé la yóbbu la ci àll mënatoo dugg sa kër. ah sa papa président wax ba sonn mënu ci dara. ah Serigne Touba wax ba sonn mënu ci dara. kooku boo demee tey ba nekk député rek jaral la <laughs> ngay wor sa bopp xam loolu mooy wor sa bopp. c'est contre nature xam lu ñuy wax ne golo xaj mënuñu ànd nga bugg leen àndal. mënul dem. mais Déthié Fall nekkoon ci nekkoon ci liste bi liste coalition Sàmm Sa Kàddu. waaw ah. dañu kon xaar bu baax ci euh, ay ci campagne bi. gisaguloo dara nee naa la am na liste yu nar a yu nar a changé avant les 17. loolu euh, dégg bi dégg nga am na kuy wax depuis arena bi lii rek ngay dégg lii rek nga nar a dégg kii gi bàyyi na fii ñëw na fii. <laughs> est-ce dégg lu ma lay wax. lan ma jàppale moo déclenché mbir mi ba gars yi di fàqe ku ñëw ñu ñëw. mais leer na le 24 mars dafa leer nañ nga ñëw defar euh, sa projet bëgg ko présenter ñu bañ a respecter population bi parce que assemblée yi mu dañ ba def c'est bañ a respecter population bi c'est les députés du peuple. Mhm. le peuple ku mu wooteel. le peuple kañ la wax ne mooy président. président Bassirou Diomaye waaw. yow nga ne da ngay représenté peuple bi peuple ne la fii la bëtam euh, jublu yow nga ne fa la jublu te kii bu fi ñëwee sax euh, ma dóor koo def ko motion de censure mais kooku ñooñu Sénégalais la ñu sa saaga Sénégalais la ñu saaga constitution may Diomaye jaar foofu ne leen constitution may na ma ñu fermer assemblée bi dañu ñu assemblée ku nekk toog sa kër am sa salaire ñu woote waat beneen assemblée ma xool bu ma Sénégalais continuer gëm ma xam ne moo xam ne man maay décidé bu ma Sénégal continuer gëm associé ak yéen ñu ñu def coalition ñu mën a. yor mais ci son ci son discours nee mi ngi jégalu waa coalition Sàmm Sa Kàddu la ma tax muy jégalu. xanaa nekkul woon xanaa dafa dafa dafa dafa war. wala dafa sàmm wala dafa sàmmul kàddoom wala. Ah, ñu leen mën nañu pensé ne que dafa war ah. mais ñun waa waa Pastef ñoom. mais jégalu kay jégalu ma ko jëm nga def nga def aussi. am boo gisee xam nga nit moom. on a dit qu'il y a que les imbéciles qui ne changent pas dama soo dégg waa français di wax loolu. yow boo demee ba nga yor ay nattukaay ay nattukaay moom. politicien depuis des années. am na nattukaay. boo nattee ba natt bi xam ne lii fii la féete. te yow sa conviction en bi ngay def politicien mooy dimbale population bi. Mm-hmm. dimbale population génn ci li ñu nekk guute bi ñu nekk. Mm-hmm. te on n'est pas un pays pauvre on est un pays appauvri. appauvri xanaa jàppaleel ñi nga xam ne dañu bëgg a dindi li ñuy pauvre nga jàppale leen Sénégal yi génn ko ci guute bi. ok bi gis nga ko amul fu mu nekkul de. ci ceeb bi. ci or bi. Euh, ci ci lonage bi. non ñiy jël no non guute bi sax mooy ñiy jël. xaalis bi waaw guute gi xaalis mu nekk canal horizon nekk euh, xaw ma. Euh, Somalimak Somalimak sax bi taxoon ngeen defe ne. ngeen defe ne man maa yoreel gouvernement bi. <laughs> Somalimak ak Somal Assistance suñu benn. moi devant c'est une société turque bu yoroon Sénégal ay deux cent milliards. ok ay duma téléphone docteur Niang yow da ngay wax nan ngay jàppale ah ñoom Sonko ndeke day yàgg. ndeke ah, <laughs> ma publié ko ma loolu la. suma limak moo yore l'état mhm. d' accord man kay contribution man bi ma yàggee jubal yàgg na de. Mhm. damay jubal bi ku ma ne la ay société d' assurance yu bari dama leen yóbbu dama leen yóbbu tribunal. Mhm. tribunal ngay liggéey faj nit ki ba sonn assurance man du la fay tant que joxuloo ko ci dara loolu malheureusement ñu bari ñu koy accepté mais man dama bañ dama jañ société bu ma yoroon cent et quelques millions dama koy dama wala ci jox dërëm te ma jox sama xaalis <laughs> ñu dem ci yoon c'est vraiment malheureusement yoon dafa yàgg on a mis cinq ans avant may jot quatre quatre vingt millions gis nga tu as perdu ton temps boo <laughs> ñu jox la sa xaalis mais mais loo xam ne du dem Déthié Fall avant mu jël décision bi on a vu que mu waxtaan ak Sonko. ba mm-hmm. génnee photo yi ci ci réseaux sociaux yi. mais entre temps euh, tey ki suba dégg nañu ne moom ci médiation bi amoon na Cheikh Bara Ndiaye ñëw na. kii Cheikh Bara Ndiaye. Oh. ñëw na ci pour médiation bi entre moom ak Sonko pour moom mu dans ci fi nga xam ne moom mooy ci ci ci fecc kii euh, ñëw ci waa Pastef. est-ce que lu du ñëw ci Pastef. non ma ne Cheikh Bara Ndiaye. parce oh. que moom moo bokk ci médiation yi. waaw médiation yi nga xam te ñoo ñoo ñoo waxtaan ak oh, moom. mu ñëwaat ci ci ci ci ci ci jàppale Pastef. est-ce que aussi moom euh, Déthié Fall nekkul koo xamante ni xamul ba xam nit ñi nekk ci ginnaawam ba moom bu jël ay décision fa mu am ñoo xamante ñooy ñooy nekk ci ginnaawam. mais dafa naa jël ko moom kenn dafa naa ko bokk ci kii def politique bu yàgg te am parti moom demul moom kenn parti bi la yóbbaale <laughs> kuy ñëw nii est dafa ñëw moom kenn ah, mais dafa bokkoon ci beneen groupe mais buy dellu ci ci ñoom Pastef dafa yóbbuwaale ay on voit on voit des ah. personnes nekk ci moom yoo xam te instant bi dañoo dañoo démissionné waaw ah, mais kooku ci yëpp ça prouve que moom PDS ñaata ñoo fa démissionné bi PDS dem ba ne day dem à APR mhm. Mhm. bi PDS nangu démarré APR. ñaata nit ñoo fa démissionné. bi APR bëgg euh, euh, bëgg xaw ma ki ñëwaat xaw ma jiite leen ñaata nit ñoo démissionné. non kooku moom euh, ay xalaat la. ay bokk ay farfar la. kooku c'est comme les bu et les couleurs. ok kenn mënul yor yoral sa bopp couleur. ku nekk dafa yor sa goût ak sa couleur. ku ne li ngay li daal. ne kii politicien pur la wax naa la dafa am ay nattukaay natta na bi xam ne lii fii la féete ah moom foofu la bëgg a féete population moom kuy politique def naa population moo la tax a jóg c'est vrai ah politicien bu sincère population moo lay tax a jóg mhm. boo demee nga xam ne population fii la féete mhm. Bon, bon Docteur, on a, on, a, on, a, on a vu hier la sortie de Wassam Kadou. Nous avons vu Wassam Kadou euh, qui point de presse. De l'union qui actuelle de Bougad, mais nous avons eu un petit battle médias. Mon meilleur avantage, mon meilleur bonhomme Dakar. On a, on a, mais, mais, mais, mais, il faut me l'aider. D'abord, d'abord, il s'est excusé. Mais, mais d'abord, il s'est, d'abord, il s'est goulou. Qui le mouah ne peut que des sagas, il saga, il y a qui est-ce que Poté war na war a toll ay saagaante ñoo ñaar ñooñu daal teg leen de côté teg leen de côté man bu ma yàq sama du ma yàq sama wax si si ñaar si ñaar ñooñu Bart mooy jiite liste bi mooy teg liste bi nekk encore borom Dakar ko foofu le 17 a ngi ci kanam tu penses que le 17 a ngi sa kanam tu penses que le 17 ñoom du kii coalition Sàmm Kàddu du am dara ci élection yi c'est vrai waaw du ma si du ma si yàq sama wax ci ñaar ñooñu. may ma ba ñu waxtaan naa ci. may ma ba ñu waxtaan naa ci. yow demoon nga arena. bien sûr naa courir. gis nga di fa dugg. oui 15000 personnes la de. waaw ku nekk paasal sa bopp. mais dégg naa ñu ne 15 personnes ma ma sax ñaari ñaari député ah. ku nekk paasal sa bopp. waaw. paasal sa bopp. <laughs> waaw ok bàyyi noonu. mais mais mais. fu ñëpp dugg de. sàmm sa kàddu lu mu xam naa ko ñëpp dugg ñu sàmm sa kàddu nu mu nu mu jugee nii actuellement nii ak fugg bu ñu am. Ah, ak liggéey yu nekk ci moom njëy le Thierno Bocoum Anta Babacar Ngom. Ah. Barthélémy Dias Bougane Gueye Dany ah. ak bu ñu ñooy yëngoon ni ñu am ñoo ñu am dara ay rek nga moo xam. ñi ma tuddee ñëpp ay perdants lañu. boo ma lay opposant ay perdants xam la mooy perdant. ñu ñàkk ba pare. <laughs> parce que ñàkk boo ñàkkee doo am plan. Mhm. opposant mooy ku ne man euh, waa presse. Ah, bu ma jegee politique nii leen nar a demee. oui. ñii ñii seen xol moo tàng ñu ne rek dañuy dañuy opposé wu. dañoo mer quoi. xanaa kii la leen wax ay perdant ñu seen ta xol tàng. xol tàng mooy mer mais bu ñu nekkoon parti boo gisee ni ñu bëree rek nga xam ne ñu ni ñuy jaxasoo rek nga xam ne ñi ñu ànd. ñoom par réaction lañ par réaction lañu agir par réaction def nañu lii man kii xaaral ma. ñu ngi toog seen ay émotion quoi. c'est émotionnel. Hmm? ban parti moo si génn même booy defal coalition day menn parti bu jiitu. Hmm? parce que ñuy def Diomaye. bi ñuy def xaw ma coalition Diomaye. xamoon nañu Pastef moo jiitu. ñeneen ñi ñëw euh, di jàppale. mais ñii kan moo jiitu. sama sama sa kàddu kan moo jiitu. ah ñu ngi Barth Barth de moom moo tête liste xaw ma nag. waaw <laughs> ah, kan moo jiitu ban parti la. kan moo ci euh, taxaw Sénégal. Barthélemy moo fële ñeneen. boo xëy na dañ dañ supposé ko déjà mox euh, kii nu mu tudd euh, mox Sall beneen bii fu ñu toll. moo Khalifa Sall. waaw. ci ci ci yi. waaw. parce que. li ñu am moom ñoo bokk coalition. oui ah d'accord moo jëmee jaar ko. mais PS kam PS fàttewuñu PS kam moo ko jiite léegi. Tanor. ah an ban Tanor. non damaa kii Khalifa Khalifa Khalifa Sall. Khalifa Sall. waaw ani maire bi. maire bi PS la bokk ba léegi de. mais Barth il a il bi PS la bokk ba léegi de. <laughs> waaw dégg na poste sax mën na poste ba fekkee ba fekkee kii bi ba fekkee xaw prestation de serment de. waaw. waaw Aminata Aminata Aminata Mbengue am nay nit aussi de. Aminata Mbengue am nay nit te dafa replié wu quoi dafa dafa dellu ginnaaw bàyyi leen quoi. mais ba dellu woon ginnaaw dafa nekkoon am ak kii. dafa nekkoon a ak kii da nga fàttali. nekkoon ci Macky Sall <laughs> mais mais mais moo tax yow daal ñu la. mais doyen doyen bëgg dëkk bi avancé. Ah, ñu ngi wax population ñu muñal leen ñu may leen ci six mois yi ñu def ce qu'on appelle l'état des lieux. ñu ba xam dossier yi génn yëpp gis nga amul lu ñu bàyyiwul. waaw ah ceeb ba sàcce nañ fa pétrole ba sàcce nañ fa euh, or ba sàcce nañ fa. ak xaalisu réew mi la moo ci des. xaalisu réew bi ñu ne moom man xaalis boobu réew mi jaaxaluma parce que depuis corona bi xamoon naa ne ko lekk mën a lekk euh, mille euh, mille milliards. waaw ci loo xam ne dafa waroon a njëriñ pour faj nit ñi. Ah, nga mel nu dëmm ngay lekk rek. Hmm. di lekk nit ñi ba lekkaale nit ñi. Hmm. mais kooku bu ñu naan mille sept cent milliards. en parlant de wax leen li gën a grave mooy c'est que système yi sax. waaw les organismes internationaux sax étaient dans le complot. ah. ah mille sept cent milliards di ko mën a jox nit xam xamuloo fu ko dugal. oui c'est impossible c'est xamuloo fu mu ko te dès le départ la ñu positionné gaaw pour que affaire bañ a feeñ. Diomaye eh, président Diomaye ku mu njëkk a recevoir audience. Charles Charles Charles. un certain Diop na benn mbokk Diop de la Banque mondiale. la jëkk a recevoir ça veut dire que ñoom ils étaient derrière la porte depuis un moment. Mhm. xam nañu li xew. mais Amadou Ba génn bëgg def nee na moom ba nee na réew mi bàyyi na fi deux cent bu ma sàccoon sa portable nga fekkoon sa poche lu ma lay wax. portable bi bu ma ko sàccoon si yow nii def ko poche nga téye ma nii sa loxo lu ma lay wax dama lay wax ne maa ko sàcc. ah donc ce que laa kon ay ay la quoi. da <laughs> a bàyyi na fi deux cent soixante dix milliards ci dans les ñu lekk xaalisu corona bi. waaw ko fekkee ñëpp euh, jaratul may dóor sama doom ci ñoom. ñi fekk dossier Mame Mbaye Niang bi lax ko ba léegi ñu génn waat dossier bi ñoom tamit jaruñu may may may dóor sama doom. parce que ko gis nga problème la. <laughs> ñooñu bu ñu jëloon say un milliard tey jii di la ko may sax loolu doo ko gëm sax. le le premier ministre mi ngi sàkku mi ngi mi ngi pare pour def benn débat débat public entre moom ak Amadou Ba. on a entendu hier Barthélémy Dias di wax naan Sonko euh, bëgg naa def ko débat en français parce que Sonko il n'est pas bien calé en français quoi. mais a on n'est pas des français. demaguñu hmm? France demaguñu francophonie. opposition bi. non état actuel bi gouvernement actuel bi. waaw suñu leer na on n'est pas des français. ah a besoin d'être am benn ndax boo xam te. débat boo xam mooy colonial mentalité. xam nga colonial mentalité. waaw xam nga syndrome du di kii mu tudd de Stockholm. oui. kii lay def lu bon da ngay dem ba ko. yow nga di ko défendre. te seen oon rostocol ah, ay benn ay xale yu ñu jëloon en otage mm-hmm. leen jël otage bëgg leen rey gën a leen seen yaay comprendre mm-hmm. ku yor ku yor ku yor li nga def dese ci àddina bu mm-hmm. demee ba influencé la da ngay dem ba benn dara duutam valeur autour de toi loolu mooy syndrome de Stockholm <laughs> comprendre loolu comprendre voilà Hmm? donc ci loolu lañu nekk français dañuy dem jël suñu xel jël suñu mind def fa loo xam ne léegi. Mhm. man nekk naa France dix ans benn français mosuma corriger faute. français ji boppam du la corriger yaa ngi def faute mais sénégalais bi nekkul français mooy wax ne attention yaa ngi def faute. Hmm. complexe quoi complexe. <laughs> complexe sax teyuñ ko. psychologiquement boo ji boo nekkee sixième ñu commencé di la dóor ay. waaw waaw ay ay kii. waaw kooku tamit beneen syndrome la bu ñu la xam ne syndrome de Mendelssohn le réflexe de de Nelson xaw ma dañ lay won mburu nii muy ñëw nga commencé sax xam ni mburu boobu ànd ak benn sonnerie bu ñu dindee mburu bi def sonnerie bi da ngay defee mburu bi mooy ñëw nga commencé nga commencé sax xam <laughs> donc ay réflexe yu ñuy dugal si yow yoo xam ne day dem ba dépassé la. mais doyen suñu kilifa yi aussi suñu njiitu réew ak suñu premier ministre war nañoo mën a wax français bu leer. bu bu bu ñu ci. ci international bi ci ay francophonie lu tax muy dem français français bu leer. mais am po pour mën a jaay suñu réew am po. jaay donc jaay complexité bi la ngay wax jaay ko jaay nga sa bopp ñu bi nekkee xale moo nañ daan def exprès def ay faute de français boobu ñu commencé bett yi que. que ñun ay français. oui ñu nekk école euh, ñuy wax laa à place de le ñu ne laa. waaw <laughs> exprès pour que faute pour que prof bi nañ ko ñun malgré tout duñu ay français nañ ñu may jàmm. dañuy xam ne fii sax léeg lañ war a def ñu bind laa. ah wan ne prof bi attention ah ñun ay africain la wolof la ñu xam wala tukulóor wala leneen. Hmm. kaay corrigé ñu ci tukulóor. man ba ma corrigé woon ci tukulóor mu laal ma mais ba ma corrigé ci France. Hmm. dama lay ree dama lay yërëm yow lay yërëm sax yow may corrigé. Hmm. <laughs> <laughs> est ce que mais mais mais li xew li bakkel Bakel. yoo xam na ah. war nga war nga ko miin parce que yow. foofu li nga fay li nga fay Fouta Matam Bakel. waaw li nga fay dem béy na macha allah. Euh, li fa xew gis nga. Euh, fleur bi ndox mi daa nga nangu yenn ci kër yi ñu masawu baax waa Bakel yi mais Bougane bëggoon faa dem. waaw waa Matam et cetera euh, Bougane bëggoon dem yóbbu ay ay Euh, on a vu après li xew ba actuellement mi ci kaso bi le trente lañ ko lay jugé d' abord comportement Bougane ce jour là ak devant les forces de l'ordre noo koy noo koy kan moo ko arrêté. Hmm? kan moo ko arrêté ak lu tax ñu arrêté ko. la gendarmerie nañ ki ñoo ne ko taxaw parce que le le euh, euh, le président est à Bakel. bien sûr le président n'est pas à Bakel pour des raisons de sécurité il y a un convoi là-bas sa convoi mënagul dem xaaral tuuti. xaaral tuuti nga convoqué président président de la république des sénégalais yow fii Dakar bi ñu baare tali nga bëgg a jàll nga taxaw waaye. moom nee na le président à Bakel moo tax ma dugg Bakel yow mii est-ce que dëgg li ma la wax. waaw ah. président dafa am ni système de sécurité bu muy am. tali bi muy jaar bu fay jaar lañ koy baax gendarme moom moo taxoon ñu taxaw ko. est-ce que Bougane moo taxoon gendarmerie taxaw foofu la gendarmerie taxoon pour des raisons fan dañuy dañuy jalonné boobu yëpp bu ñu gisee lu mën a am andi yëpp voyage koo xam ne daan saaga président ne day jubal ci président. Mhm. kooku boo ko bàyyi mu jàll kooku yëpp yaa ko tey. daan saaga président maanaam wala daan wax li xam li ma xaar ci réew. wala ba mu wax daal lu bon ci Sénégal. di opposé président bi. mais yow bu fekkee da bëgg sa bopp la yow boo amee ñaari xarit yuy xuloo nga defee ne di nga yow mën nga am ñaari xarit yoo xam ne dañuy xuloo ah. d'accord kenn ki di la seet si keneen di la seet si nooy def soit yàlla dimbalal nga am deux salons nga yóbbu kii ci salon bi soit kale bi salon soit kii nga ne. mais mais doyen euh, doyen mu on ñuy bëgg a jël yëpp teg ko ci kaw euh, le nouveau gouvernement. y a rien. mais pour leen tey jàppante ay policier yu la jox ordre euh, nanguloo obéir muy désobéissance muy. insubordination à des hommes de tenue. Hmm. loolu loolu la mais jàppuñ ko politique. pour l'intérêt du a moo tax ma ne sujet boobu. waxatuma mais xam nga dañoo wax ma wax ma yenn secours yi ni mu mel. waaw milliards yi ñu fa nar a dugal. pour secourir mais non ba ñaar ñi waxoon naa la du ma wax seen wax. mais nga may ma ko rek doyen non duma la tontu. gis nañ fu oh. te boobu mm-hmm. tension yi baax seen diggante ñoom ñaar. balaa fii ni ko Macky Sall ñëwee daal ko recevoir ba ñu nuyante waxtaanee réew mi ndax boobu temps réew mi moo moo soxla international mais Bougane daal di ñëw yore ay ndimbal bëgg ko jëmbal waa waa waa kër tamit Sonko demu fa de force Sonko Sonko dañ ko oo ne yow am na lu xew ci dëkk bi waaw ñu associé ñun ñëpp ñu jóg ci te gis na c'était pas sincère même parce que mille milliards yi fu ñu mujjee ku lekk mille milliards yi foofu sax dañ ko personne kaay pour l' intérêt national ñu ñu lonkoo ñu. ñu sauver les sénégalais. bi ñu décidé ne que 1000 milliards lañ fay def lu 1000 milliards yu mujjee. nu mujjee yow loo ci am kooku war na regretter li mu fa demoon. Sonko war na dee war na regretter lu taxoon mu dem ci. ci affaire boobu au contraire ñi dañu doon dañu doon tëral pexe pour pour dóor ñu. te dem ci ba ñu ba ñu koy sant. ba mag yi am ci ndam te te ndekete ñii li li ñu yéene woon du lu baax. Hmm. Ah, te hmm. Sonko day regretté li mu demoon foofu. Hmm. parce que ñii dañ doon euh, dañ doon nas. lu ñu lekkee mille milliards. ok nax la ba nga ñëw foofu nga jàppale le kooku <laughs> kooku moom regret bu rëy la. mais une chambre de quarante huit personnes. Bougane fa la nekk actuellement foofu ci Tambacounda. Ah. nee na fu nekk une chambre de quarante huit. man fu ma nekkoon. man fu ma nekkoon. Ah. bi la bi la téye. ah yaa xam nga wax ñu ko. mais aussi kilifa la aussi doyen. nga jàpp ko tëj ko ci kaso bi xam nga. ah d'accord man fu ma nekkoon. kon fu ma nekkoon Sonko fu ma nekkoon de deux mètres deux mètres lañ nekkoon xaw ma deux mètres sur trois mètres. mais moom délit délit public la def deful délit politique. déet jàppuñ ko dafa saaga Sonko jàppuñ ko dafa saaga pré président dañ ko jàpp ne man gendarme laa son naa tenue nee naa la bul jàll fii nga ne da jàll. taxawal fii nga ne doo taxaw nga taal sa oto. nga démarrer sama kaw mais mais nee na communiqué bi dafa sedda nee na communiqué nee na le communiqué de la gendarmerie ñoom dañoo chargé ah. ah duñ ko chargé yow boo ko chargé ma ne la waaw Sonko de li def baaxul boo ma waxoon moo euh, kii président Diomaye moo ko ma ne la baaxul. mais gendarme bi nga jàppanteel. waaw mu di la wax bul jàll fii nga ne maay jàll de force te kooku dañ ko jox tenue. jox ko l'insigne du Sénégal. ne ko doxalal euh, loi. nga bañ. il mais def sujet boobu da ma ci wax ma ñu naan rek mu mel bañ mel ni yeneen milliards ñu naan def ci yeneen doyen léegi les huit milliards moom ay a les huit milliards waaw sa xaalis la sama xaalis voilà Sénégal yëpp ñaata yoon lañ ko lekk Sénégal ah. ñaata yoon ci événement yu mel nii lañ ko lekk léegi nañu jóg nag ñu prévenir yéen journalistes yi ngeen jël xool dossier bi bu baax. Mhm. Mhm. laaj leen dossier huit milliards bi muy demee. ba du demee ni Malick euh, li xewoon Malika Malika jaar xewoon douze milliards. xaw ma euh, voilà bu Malika rek fan Saint-Louis aussi ay milliards temps yi wàdd yoon nag dimbale leen ñu ba. Euh, dossier boobu leer quoi jox leen transparence bu leer ci ah, huit milliards yi. on a vu le le démon man mooy laaj nañ ma samay bagage ah ñaata lay jar ma joxe ko aw ma intermédiaire. déjà loolu defe naa mosul am Sénégal. oui ñaa am ngay ambulance. lan nga ci mën a indi ci ñu jàppale waa Tamba. Mhm. Euh, ñaata ngay fayoo. Ah, laaj na la yow. voilà laaj na la on on bu la bu la ko demandé nga jàppale. laaj ba ma jox leen ko. très bien <laughs> ok. loolu mosul ans de médecine ici mosul événement mosul am ñu ne ku nekk loo mën a def ak loo yor. Hmm. donc déjà muy changement boobu. ah est-ce que li ma leen di fayoo dañ ma ko jox wala dañ may wax ne euh, laaj nga cinquante mille mais vingt mille lañ lay jox nga signé cinquante mille loolu moo fi bëri mhm. la la vingt cinq mille nga signé cinquante mille. Mhm. ñu jox la deux millions nga signé cinq millions. oui ba wàññi voilà biir nañu dimbali. boo xam naa mag ci euh, man a Karim euh, man a Karim sax wala. Diomaye <laughs> Diomaye ak PM rek. mënuñu quand même dawal. prestataires yooyu mais ñu monté système boo xam ne dina leen mën a xam dañu mën a xam ndax xaalis bi dem na réellement foofu. donc ñoom ñoo ko jëkkoon wax bi ñu demee ñu demee Malika. waaw ne yow euh, ministre boobu nu mu tuddoon sax foofa na wala kan la te mu soloon boot yi. Ah? Uh-huh. Ah, ah ñu ne ko fii fii li nga wax ni mu dugg fi mais mais mais doyen. tu vois bii nag nañu dimbali dañ ñu bañ a. ànd ok bu ñu ne huit milliards la dugg foofu. nañu compter ceeb bi. compter dugub bi. <laughs> compter suukar bi eh, voilà. ok c' est important doyen médecin bi nga doon. on a entendu bëgg démb Ousmane Sonko foofu ca Arena. Euh, mu ni euh, bi muy bi muy bi muy def grève de la faim. Hmm. nee na moom moo ko defoon exprès di def di di ma xaw a tàppale comme bu dee noonu laa ko mën a waxee. Hmm. Euh, parce que kat boobu xamoon na ni pression bu ñu koy teg il fallait que mu jéem a tàppale pour que au moins nit ñi xam ne bi léegi mu ngi ci mu ngi ci de la faim pour que plan am jàll. est-ce que nit mu nga def grève de la jours te dara du ko ci fekk. Ah, mais moom nee na fan la ko doon defee. ah fan la doon defee grève cent ans. parce que médecin duñ la bàyyi duñ la bàyyi nga déshydraté duñ la bàyyi nga manqué sucre. kon moom mi doon lekk moom bi ñu lekk dañ koy jàll si si xam nga am na loo xam ne dafa am valeur international mondial mooy ñu ne kii dafa xiif waaw wala kii lekkul c'est un symbole très important waaw voilà am na ñu ne preuve que lekkul kooku bon c'était un moyen de pression internationale mhm. qui a fait que Macky a reculé mhm. d'accord mhm. mais entre temps bi mu ko doon grève si fa ci hôpital maintenant en tant que médecin bu ñu ma joxee nit kuy grève il faut ma perfuser ko dama xam ne kii bu lekkulee dafa nar dafa nar loof kii bu lekkulee tel vitamine du ko am kii bu lekkulee dina manqué tel protéine mais yooyu yëpp moo dugal ci perfusion bi dafa def grève de la faim mais deful grève de soins. mais mais loolu def na grève de soins. loolu loolu nekkul parce deful grève de soins de. waaw de la faim la de mi ngi dugg ci gémmiñ ji kooku symboliquement c'est très fort mais entre temps médecin ñu ngi doon def beneen système pour que mu bañ a mais loolu nekkul nekkul tapale. parce que wax na ko nee na moo ko woon dafa ay du tappale du ah. c'est un combat politique c'est un combat politique benn médecin génnewul certificat médical ne mu ngi pare dee gis nga loolu gis nga ko certificat médical médecin rek moo ko mën a génne ne kii de fii la toll mais certificat médical boobu amul kenn kenn yoru ko woon bu waxoon ne dafa def certificat médical ko mu ngi dee médecin def na ko alors que deewul foofu lay grave mais moom il était dans un combat politique. Oui. Hmm, hum, pris en charge par le euh, qui est par le médical. oui. Mm-hmm. ñu ko ne dafa tëju néegam ne benn bu fa benn médecin dugg bu fa kenn dugg moom rek mu toog du lekk kooku su suuloon nañ ko bu yàgg. mais le fait que moo ko bëgg démb du du du xaw a révéler ay soupçons. non non au contraire. na nga ko Sonko politique ñu bëgg a rey. Ah. ko bëgg a même la marché de kii la marche de marche de liberté bi mu defoon. waaw kooku tamit c'était un gain de temps. xam nga mhm. échéance électorale yaa ngi ñëw nii. Mhm. buñ ko loofale woon de côté dañuy il serait resté au pouvoir depuis longtemps. Mhm. mais temps yooyu ça a permis de soulever les consciences de façon internationale. ça a permis de soulever la population de Ziguinchor jusqu'à fan la ñu ko arrêté woon. Koungheul Koungheul Koungheul Koungheul voilà kooku su ko Sénégal yi ça fait bouger les mu ñëw ñu arrêté ko tëj ko mu continuer def ay pression sur le le gouvernement système le, gouvernement politique mais au niveau juridique et au niveau médical euh, yëpp a jaaroon yoon mais mais mais le jour bu jour gis nañu mu daal di jël ñoo ci gënoon sawar euh, mu jël xam nga Sébikotane la jógee lu tax ah. dewlul Sébikotane lu tax dellu Sébikotane. lu tax yóbbuñ ko Sébikotane ah. yóbbaat nga foofu quoi. ñoom seen bopp dañ ko soxloon pour mën a waxtaan ak moom. ah kon à l'époque état du Sénégal mu doon waxtaan ak Sonko ak ak Diomaye ci suuf. <laughs> laajal Goudiaby <laughs> laajal Goudiaby bii doon def lee. mooy bàyyi bi doon def surga bi. Ah. Euh, ak jibi ngay jaay. malade bu nekk Sowatage tamit malade Sowatage ñaari ñaari weer mos nga ko dégg. déedéet voilà lu tax mu def ñaari weer. yaay médecin bi yow yaa ngi a moo tax ma ne la waxtaan ba waxtaan bee commencé woon. pression yi mu doon def moo dem commencé positif ba gars yi soxla commencé waxtaan ak moom. ok mais xanaa waxtaan boobu moo. la la l'accord de Cap Manuel. Cap Manuel waaw ma bi waaw protocole de Cap la ñu ko bind. la ñu toog bind l'accord non non non non ah, ah, donc foofu yëpp depuis Sèye Bikore. ah kon da ngay dëggante kon y' a un protocole entre Sonko ak la l' ancien régime ba nga yaa ngi dem ñaan sax am na dil sax bu nekk ci biir pour que Sonko génn ak Diomaye. ma posé waat la beneen question. jour bi muy jaar ci pont waaye nag posé nag. jour bi muy jaar ci pont bi. waaw lu tax kenn tiiréwul. jour bi Sonko di jaar fan. ci pont bi fii ci buñ ne ko jaaral ci yoon bi. waaw waaw waaw ci tunnel bi tunnel bi. moo war a jaar ci tunnel bi. waaw. parce que boobu ñaari force ñoo fa nekkoon. ñii bëgg a tiire ñii bu leen ne leen bu leen tiire ñu tiire leen. mais kan moo joxoon Sonko le renseignement ne ko bul jàll bul dem. <laughs> Sonko amul ay militant ñun xam ngeen élection yi jour bi militaire yi woote la la jeex xam nga militaire ñoo ji ko woote. waaw waaw ah, borom tenue yooyu bu ñu wootee déjà premier jour Sonko gagné ça veut dire bi ñuy rey ñoom Philibert ak ñoom kii tamit lu tax. Hmm. gouvernement wu Sonko taxaw bu yàgg gouvernement Sonko taxaw <laughs> mais mais mais ci ci ci foofu ca arena gis nga mu jël le jeune DG là Jean Michel. Mm-hmm. mooy ah, itam nekk di DG Azer. Mm-hmm. di ko wax ne ko y' pas de scandale. Mm-hmm. ci affaire bi coow Azer bi. di ko glorifier di ko wax ne que yow ma je suis de toi. tous les Pastefiens sont fiers de toi. ak yaa ngi dégg coowal Azer ak scandale Azer bi. tant sept milliards yoo xamante ni ba léegi Sénégalais ñu ngi ba xam fan la kii fan la dugg. est-ce que le PM jël risque di di jéem ah. a sagal ki nga xamante ne moom mooy Jean Michel. mais mais loolu loolu mooy sagal li ngeen di wax risque. ngeen di ragal te moom ragalul loolu mooy loolu mooy avantage am. loolu mooy jàmbaar jàmbaar mooy gaynde gaynde gaa ngi doo kenn ñemeñu bu jàll yow nga jàll. <laughs> yaa ngi dégg loolu <laughs> jël na risque ci mille sept cent milliards yi dëgg la du dëgg bu nekkee dëgg Sénégal dootu am njariñ Sénégal dootu wax fu mujje hmm? lii tamit yaa scandale boo xam ne xale bu ndaw ñëw na fekk fekk fu ñu waroon a dugal xaalis bi def fa même pas cent vingt cinq euh, mille cinq cent foyers te mille cinq cent yooyu sax narul mat mille cinq cent yooyu narul mat moom la ñuy annoncé nii en fin de compte buñ na buñ defoon duñu duñu mooy góomoon ñu def cinquante il faut mën ñu def cent non affaire bi noonu gisoo léegi tey demal ci ay certains menuisiers ci dëkk bi di nga fekk ay bancs yu ñu defar pour la rentrée waaw boo xam ne décidé woon ñu ko depuis janvier daawaati jéeg maa yooyu kenn livré wu leen ñu ngi foofu kenn jël si wu leen hmm. wëral fii les les maçons les menuisiers là ñuy defar ay bant ñu ngi fekk ay ban yu ñuy defar ba pare peut-être même depuis daawaati jéeg kenn du leen jël si ça veut que ñoom le ce qui s'est passé avec le système là Mm-hmm. mooy sama wàll ci xaalis boobu importance mm-hmm. Mm-hmm. signal ma benn papier que jox naa la deux millions cinq cent pour cinquante bancs deux millions cinq cent yi ma jël si sama commission pare naa ci boo ma libéré ax lan boo ma libéré wulee ax lan exemple dimbali fii rek nga taal sa oto wala sa moto nga wër fii rek nga xool les les grands ateliers de mécanique. ndax amul ay banc yu fa nekk. nga laaj leen banc yooyu kañ la woon. su ñuy wax banc wu daaw jéeg nii banc wu ren a ngi nii banc wu daawaat jéeg a ngi nii dëkk bi dañu demoon ba. ba à part sa bopp. amul dara loo sóoraale. la bëri woon mooy li wax xoolal rek li ma ah, avion or yii dem. Mhm. Ah, LONASE. Mhm. milliards yi fa jógee. oui euh, canal horizon ñaati milliards ñoo ko jógee. Mhm. sama sama mbokk espagnol yi porté non turu li maanaam espagnol sax euh, turki yi nga xam ne turu si lu suma la ñu yor suma lima. suma lima ñaati milliards. wax la beaucoup de scandale. donc nañu ba dëkk bi amul. Euh, contrôle dafa demoon boo yar sa doom da koy jàngal sàcc. Ah. système bi fi nekkoon. Hmm. boo bëggee sa waa kër mucc. Hmm. jàngal leen sàcc. bu jeex sa doom ah, xanaa loolu moo tax ba xanaa ah, loolu moo tax ba may ne jeey wax ni bu dee bu dee ah. bu dee Abbas yaa jël yaa tey bu dee Abbas Fall bu dee yaa jël tamit yaa yaa tey est-ce que ministre aussi war naa war naa war naa waxee noonu mais bon xam nga c'est am na loolu mooy tabou ay tabou la ñuy wax alors que c'est c'est l'inverse ah bi ministre de la santé waxee ne moom waa Pastef lay jël mais ban gouvernement moo dul jël waa këram ban gouvernement moo mooy moo dul jël waa parteem ci waaw mais est-ce que aussi ministre. déglu ma rek non gouvernement moo nekkul gouvernement bi gouvernement APR jëlee gouvernement jëlee état bi. bi président. Macky comment ça s'appelle Macky jëlee bi. oui tout tout est devenu APR. lépp ay APR. mais rupture ngeen waxoon non. rupture ngeen waxoon rupture ngeen waxoon mais d'accord lépp. non mais rupture mais mënul changer yow mënoo nit la jàppale ba nga gagné nga ne leen yéen toog leen fële madame jëli ki ma doon door ay xeer. comprendre nga loolu. oui Moussa Fall tey euh, bu ñu defoon concours bi mu gagné ko mën na mën na fi nekk man na fi nekk directeur de la gendarmerie. am na am na logique am na loo xam ne boo ko waxee sax mais am na loo xam ne mënul dem am na logique bu la koy tere def wala loo xam ne mënul dem. yaa ngi dégg exemple Moussa Fall bu ñu defoon tey concours de directeur de la de la gendarmerie. général de la gendarmerie. Moussa Fall présenté wu mu gagné. di nga nangu mu nekk. <laughs> Sénégalais yi ñu ngi lay dégg mais est-ce que yow. comme am na yoo xam ne temps bi mais gouvernement bu mu uh-huh. say nit ñooy nekk ci yow. ñooy nekk ci ah. parti bu yéeg au niveau du gouvernement ça va parti ñoo fay ñoo fay ëppale. Euh, vous êtes la preuve gisoo assemblée bi nee nañ leen tant que amu leen fii. ay nit yu doy. mais du ngeen mën a gouverner. dëgg la assemblée exemple assemblée rek moo koy wane. Ah? mënoo nekk euh, diriger pays te yoruloo. Ah, vous êtes, vous, êtes pour, vous êtes, pour, de ci ah, pour sa sécurité c'est pas bien euh, euh, je suis contre xam nga ci benn avion rek boo moom deux cent personnes la ko nit interpellé bu tegee fii tànkam ñaari ñaari personnes ñoo koy interpellé mais a tant loolu war ma la en tant que chef d'état ancien chef d'état mais kan moo rey xale yi kan moo rey xale yi kan moo dem ngor tiiri ci ay xale ba rey fa benn xale moo nu muy meeting ngor dina dugg ngor pour meeting yow gis nga Macky fii muy campagne di dugg ci dëkk yi Kër Mbaye Fall mënu fa dugg Ngor mënu fa dugg <laughs> Dakar mënu fa dugg Ziguinchor mënu fa dugg fan lay dugg fan lay dugg wax ma fan lay defee tey campagne Matam a <laughs> la nature est <laughs> la nature xam nga la nature. Hmm. Matam la mënoon a yaakaar si sama mbokku tukulóor yi mais Matam sax mënu fa dugg déjà ndox bi. donc yaakaar na boobu Macky Sall il est vomi quoi par les par les par utilisé mot mais daal nee naa la c'est pas. waaw lu tax ko ñu bëgg a dugg lu tax bëgg on a eu un état APR on a un état PDS on a eu un état PS. hein on a un état Macron en France on a un état. <laughs> képp parti bu gagné dans un pays mais parti boobu mooy nekk à l'état comment ni ma la wax. malheureusement temps bi moo jeex. mais euh, je vais loolu il faut mu leer ah bëggoon ñu euh, c'est peut-être dañuy wax ni ni mu ko waxee moo grave parce que nag jëmeñ na ko wax sax. waaw parce que am ñoo xam ne dañu koy ragal a wax. Mm-hmm. mais man ko man médecine nga ne ma léegi da nga war a monter service d'urgence kan laay jël. du ma jël ay médecins yu fi nekkoon yoo xam ne dañu def urgence ci <laughs> comprendre loo waxuma la parti la mais am na relation booy amal nit yi bo ñoom nga ñoom ngay mën a liggéeyal c'est vrai ku la jàppale ci parti ba nga dem au pouvoir kooku boo liggéeyul la mu koy liggéeyal dëgg la dëgg la temps <laughs> bi moo jeex dañoo la posé léegi moo tax mais maa lay remercier bu baax a baax incha avant avant campagne bi ah. euh, dinaa ñoo def ah. ci réew mi incha allah ah. bàyyi la nga taal toog waa Feeling Dakar TV bu ma ki ñëwee ma abal ko ambulance topp ci topp ci campagne <laughs> mais dafa naa xëy xëy nañu bëri so Macky ñëwee dina day campagne. ah ah lépp mën naa nekk de. xeer xeer xeer yu bëri de. foofu moom foo nga jënd compresseur pansement yu bëri. Macky ak Karim. waaw ñooñu mën nañu ànd sax ñooñu est-ce que est-ce que mën nañu taxaw o nañu taxaw même place. ah ah en tout cas on peut voir. photo boobu de ba jënd ko photo boobu boo ko amee ak. ak Karim ak Karim ñu ànd. ah photo boobu dina jar de. en tout cas mi ngi noonu kontaan naa bu baax a baax. waaw partage ak yow ci plateau Feeling Dakar TV fii ci sa ci sa makkaan ñu baal la nga tàggoo avec les internautes. internautes yi ak waa Feeling Dakar yëpp maa ngi leen di sant encore. et vous remercier vraiment de l' audience. et surtout liñ ma yëgal ci mbedd bi. macha allah liñ ma ak di ma. kii man nga mën woon ne vraiment que li may wax man na mën na amal solo. mbootaay bi. bon alhamdulilah te ñoom ñu ne ko ko santul yàlla doo sant nit. dëgg la man de ñu may sant vraiment tous les jours. macha allah macha allah tous les jours voilà te seen ñu may sant. Mm-hmm. te man goo moon ne vraiment que que def sa devoir rek euh, mën na doon euh, mën na doon buzz. Mm-hmm. buzz ngeen koy waxee de. waaw buzz <laughs> sama devoir rek laa def. macha allah ñu war a wax ne corona ñu ngi koy passer passer wax naa ko. bi ñuy manqué respect ak xaw ma droit wu waa bi ñuy xeex. wax naa ko. Mhm. bi ñu waree faj euh, waa Pastef yi faj naa leen bëgguma ci tëj. Mhm. Eh, <laughs> mu ngi noonu mais nag euh, noonu rek la mën a demee parce que loolu ci sunu devoir la bokk. dëgg la ci sunu ADN la nekk. Euh, donc dañ koy continuer de. Ah, lanceur d'alerte quoi lanceur d'alerte boobu lay xaar. parce que waxoon nañ dañuy joxe. waaw waxoon na ko de ba léegi gisaguma ko. ah, ah dina ñëw fànn eh, gis nga li ñu def ci gendarme. waa GIE bi. <laughs> gis naa ko waaw. Ah, ah jox naa seen cër de. <laughs> ñu doon arrêté oto yi ñu doon arrêté taximan di kenn gisatu leen. Oh, ah day na waar daal ah, léegi xale yu ndaw la ñu fa teg jox leen casquette am sifflet. <laughs> macha allah circulation rek la ñuy toppatoo. oui ah, ah, di arrêté taxi bi kenn mënatul <laughs> gendarme yi xooluñu sax. donc kooku tamit vraiment réglé nañ de façon. très diplomatique problème boo xam ne c'était c'était mm-hmm. douloureux et mm-hmm. grave oui. parce que ay borom tenu yu tàmm euh, di mhm. lekk. oui neexul woon a bi comme ba woon neexul woon a arrêté. oui moom mooy dem Fuuta fii gendarme du bouger sax ci otoom fële lay topp. apprenti bi jox ko addiya oto bi hmm. moo tax di gis yëpp day fekk bidon essence nekk ci biir gendarme wala ñëw nekk génne bi dafa kawe wàccee leen. Mhm. loolu du leen ci fekk fële la ñu topp si seen biir oto. est-ce que. <laughs> donc oto bu yor ay kii boobu tamit laa tase aussi benn chauffeur bu ñu buggoon a rey. waaw waxoon naa ko ñëpp tamit góorgóorlu leen chauffeur bu leen tiital ne leen bu leen jaaxal ne leen ko dama saf saw rek. <laughs> yaa ngi réer boo nee ko dama saf saw taxaw. waaw <laughs> kenn saw ngeen defaat ko dix minutes après. <laughs> bu yàggee moo xam ne. mu xam ne la war a dawal. waaw dëgg la waaw ah, kooku technique aussi bu may jàngal ñu bëri la bi waa dañ ko obligé def. macha allah euh, day chauffeur bi mën a delloo ginnaaw. Mhm. voilà. Mhm.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 Dakar, notre plateforme d'information.